Tay dama ñëwoon visiter zone économique spéciale xam nga zone économique spéciale ñu ngi dépendre ci suma ministère depuis but ma nommé ba tey aw mënu ma ñëw Covid bi jaar fa euh, ma cette fois foog ma ñëw visiter zone économique spéciale euh, surtout ci ci ci programme bi nga xamné mom moy programme de relance de l'économie xam nga sooy relance économie lu ci ëpp aussi investissement la té lu ci ëpp aussi investissement euh, secteur privé état dina investir état dina réformer mais le secteur privé gën investir secteur privé national et international Nous avons rencontré une euh, presque entreprise donc Omega Group qui ngi transformé transformer jeunes, jën a stocké fii a exporter di def ay farine def huile donc du yok valeur ajoutée Nous ngi dem ci qui yi jënd fofu transformer nous bëgg chaîne de valeur bobu gëna a yaatu ndax valeur ajoutée bi a Sénégal lool moy est ñaarël bi nak gis nañ fi entreprise euh, produire produits yo xamné day tax nga piscine produits chimiques yoo xam aussi entreprise bobu da koy jaay fi ci Sénégal lu touti mais lu ci ëpp day exporter 95% production da koy exporter di créer un emploi créer ay valeur ajoutée fi di exporter loolu nak moy yaatal économie économie warul yem rek ci jënd ak jaay ci biir Sénégal lu bëgg moy lu ñuy jënd bitim réew mu wañéku lu ñuy jaay bitim réew mu yox loolu moy yox croissance économique moy indi valeur ajoutée indi emploi lu bëgg nag aussi moy euh, en fait troisième entreprise aussi moy Zalar nous nga dans l'agriculture, ñu toute la chaîne de valeur nous fi investissement bu aussi, aussi di liggéeyloo ay nit fii ci Sénégal am intention aussi l'intention investissement un investissement. nag nous waral ñu ñëw aussi pour encourager entreprises. yi fi sont déjà cette zone bi Nous ñu yokk seen euh, investissement et aussi un plan d'investissement yu nous avons buñ ko repousser ndax Covid Nous avons un état bi dina def ay instruments qui nous nous dina encourager ñu investir mais nous avons aussi mooy réforme réforme aussi côté électricité def tout ba Senelec euh, euh, fournir électricité l'électricité c'est régulier du coupures mais aussi ci njëg être compétitif Nous ñu exporter exporter plus nous exporter plus Sénégal di gagner loolu mooy mbir Le euh, dernier point bi que aussi moi, zone bi nag gis train né soxla ay investissement public entre mairie ak état ak partenariat public privé ci lañ koy trouver ay solutions. Euh, gis nañ ay tali yi par exemple station d'épuration yi loolu lépp état war na ci dugal loxom war na ci dugal loxom te président de la République Macky Sall waxoon na ci loolu waxoon nañ ci sax conseil des ministres waxoon nañ ci d'ailleurs bi rencontré les maires année passée mooy le 10 euh, octobre donc euh, état bi war na ci mën a jàppale commune bi bu ñu fàtte aussi mairie yi émanation état la xam nga du du mairie fële état fii mais état dafa décentralisé jox ay yenn responsabilités yi mairie yi transférer aussi ay ressources donc l'État tam mun transformer transférer ay ressources yoo xam ne day yokk koom-koomu commune yokk ay emploi commune ndax xale yi bañ a tukki des aussi budget wu commune parce que day a ay recettes commune comme ça commune su ont ay recettes yu bëri day investir ci ay social investir ci éducation éducation investir ci santé surtout santé primaire de base Je vais di terminer euh, di gërëm di aussi monsieur le maire Serigne Diop de féliciter ndaxte lu mu fi def mosu fi am te Afrique euh, ay commune yuy gérer ay ay zone économique spéciale bariwul ñoom nag am nañ xel ak xalaat créer sanjara euh, Development euh, Corporation je pense Development Board mooy société boo xam ne bi commune bee ko moom maire bi bañ fi nekk bañ ak ba nekk bañ fi nekk société boobu commune bee ko moom donc waa sanjara ñoo ko moom loolu nag am vision la nga nekk maire nga créer benn société boo xam day investir ak secteur privé de recevoir ay recettes di ko à ci commune bi yokk budget commune bi loolu am solo la donc ñu ngi ko ciy félicité di ko encouragé encouragé aussi euh, yeneen maires yi aussi ñu xool ci Sandiara et puis surtout félicité ko ndaxte emploi yu bëri nee nan ma waa Sandiara la bon Sandiara nag ci biir Sénégal la mais foog nag gars yi di recruter ay ñeneen ñu jóge feneen bu mu nag nekk ay waa Sandiara kese mais di ko encouragé te li ma ci neex affaire bi made in Sénégal cest que l'on fait fi exporté gis naa produit yu exportés exporté Dubaï à l'Asie exporté à Asie ay Vietnam Ce ce mu fa demee dañ made in Sénégal def adresse Sandiara xam nga loolu am solo la loolu vraiment développement C'est ce liy jëmale suñu réew kanam donc nous félicitons. ko féliciter, félicité. di patronat Sénégal ak la chambre de commerce faut ñu ñëw investir la zone économique spéciale de Sandiara zone qui est aussi Jass les sénégalais yu fa nekk aussi zone bi est également Diamniadio donc prochain investissement est dans vraiment bëgg nañ les patronat ndax investir ci zone yi créer un emploi tey am naa euh, visiter euh, zone économique spéciale de Diass euh, te mu am aussi cargo village cargo village ak zone économique spéciale bi ay investisseurs sénégalais ñoo ci def seen alal def ci seen xaalis di liggéeyloo ay Sénégal euh, di dimbali sunu Sénégal nek dëkk boo xam compétition internationale dina ci mën parce que zone économique spéciale dafa nekk loo xam ne war lépp exportation exportation ay produits frais exportation ay produits dans la dans l'agriculture mais aussi exporter ay toutes sortes de produits euh, gis naa cargo village bi am ay zone de stockage yoo xam yu am solo la visité également euh, zone euh, administrative surtout wa douane ñofi nek am fi ay équipe yu yu am solo euh, euh, direction générale euh, Telium logistics xamal nañu yenn jafé yu nu am jafé jafé yo xamné taxna chiffre d'affaires wàññeeku bu baax comparé ak plan d'affaires bi nu en ba jël sen alal dans ko zone économique spéciale dans le ci cargo village xam nga ñun état il faut que ñu xol nu ñuy def ba ba saafara nous jafé maintenir ko aussi attirer ay entrepreneurs ay entreprise ñu zone économique spéciale bi nga position privilégiée aéroport bi collé donc c'est da nga exporter produits dans l'urgence nga bëgg mu à l'étranger euh, euh donc bëgg non seulement les investisseurs sénégalais euh, ñëw investir dans ci zone bi wante aussi ay investisseurs étrangers d'autant plus que les tarifs ak incitation fiscale fiscales nga xam état bi def na un yu am solo la espace aussi am un espace bu bëri donc loolu la loo euh, ministère euh, nga xamné mom moom moo yilif euh, zone économique spéciale euh, aussi ak wa APIX ak ministère tourisme ak transport aérien ministère des finances liggéey la bo xamné c'est un travail interministériel pour mun safara jafé jafé yi nga xamné ño fi nek ndax zone bi mun a développer ñu mun exporter lu bëri parce que suñu objectif moy gën di exporter té amna nak jumtu ka yi fi nek yo xamné nak sen capacité d'utilisation wul nous avons par exemple stockage avons stocké 50 000 tonnes aujourd'hui nous avons stocké peut-être 10 000 euh, ou ay démé donc nous utilisons utiliser capacité totale de stockage donc ce que nous avons jappalé c'est que le Sénégal est compétitif